Bienvenue sur Salam Vision. salaamaaleykum mbokk yi xar yi ñuy seetaan ñu ngi am mbégte contenté di leen dalal ci suñu euh, émission les coulisses politiques ànd seeg soxna Aïda Faye euh, fii nii si Pikine Aïnou Mane 3 Euh, salaamualeykum euh, maman Aida Faye ñu ngi lay bàyyi nga nuyoog suñu mbokk internet yi. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu waa Salam Vision maa ngi leen di remercier ci déplacement bi ak di ñëw di ma interview ci quartier Aïnou Mane 3 maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanal ñëpp jàmm yal na yàlla defal ñu jàmm ñu war a wax rek suñu vision ak suñu xalaat ak li ñu yéene ci Aïnou Mane 3 maa ngi leen di remercier man soxna ay dafay bàjjenu ko boole tamit groupement de femmes en GIE tudde leen bëgg suñu gox kon nag bëgg suñu gox rek moo tax tey ah ñooy war a waxtaan ak waa gox bi jërëjëf maman ñu ngi am mbégte contente dina dalay tey suñu émission euh, ñu bëggoon a xam kan mooy soxna ay Aïda Faye waaw soxna Aïda Faye nag euh, kenn la koo xamante ni yàlla doomu ay numaan la parce que soo nee Aynoumane da ngay jël Lansar Touba ci ma juddoo Lansar bi ma juddoo Lansar nag wax dëgg yàlla yàlla indi ma fii Aynoumane ma ñëw na dëkk ci ay Aynoumane dëkk fi na dëkkuñ bu rafet di sant waa ay Aynoumane sunu suuf su tedd sunu bàyyi di leen sant sama kenn yu di sant ñi ma ñëw fi nag nekk fi femme action femme développement nekk fi tamit femme sociale nekk fi tamit bàjjenu gox sama koñ bëgg ma xale yi bëgg ma ñëpp bëgg ma ma nekk nag ci gox bi yàlla dogal di fi liggéey lu rëy loo xam ne ñoom waa gox bi ñoo ma ko may parce que bàjj na gox la délégué de quartier ak les conseils ñoo la koy fal ñu ëlbatiku ma nekk femme sociale képp koo xamante ni bëgguma kenn am soxla kon bu ma sañoon ñëpp dañuy am jàmm ci loolu nag lay dox am naa fi presque léegi yàgg naa am naa fi fanweeri at ak juróom-ñeent léegi ma am ci ñeent fukki at mais jàmm rek moo fi am. Mhm. te aw ma kenn xaar ma yàlla ñëpp ma bëgg ma bëgg ñëpp. Mhm. quartier bi macha allah maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lii tamit action la boo xam ne ah yàlla moo ma boole ma bokk ci. waa waaw rafetlu ko lool parce que loolu lépp quartier bi moom ma ko may. Mhm. su fekkoon ne quartier bi dañu am leneen lu ñu may gisee wala ñu féete mais quartier bi féetale wuñ ma fenn fu ma dugg rek. ñoom fier nañu ci man parce que xam nañu man femme développement la femme sociale la même la politique yi dama koy def civilisement parce que dama am fu ma quartier bi teg ma am ndomba tànk yu ma teg yu ma quartier bi teg du ma ci lus naa cee def te duma ci def sax loo xam ne bokkut ak lépp loo xam ne réalité ak loo xam ne day indil quartier bi koom ak loo xam ne njëriñu quartier bi loolu rek moo tax sax ma di ci sóobu mais bu du woon loolu sax mën naa amee noonu mais nag loolu rek moo tax parce que euh, développement bi moom bala nga ko def il faut nga am foo sukkandiku di am loo am looy réaliser ci sa biir quartier parce que dañuy soxla soxla boo xamante ni di nga dem devant le mairie ak devant ñooñu di ko piloté kayitu juddu xale yi léeg nga am euh, sociale boo war a piloté devant le maire léeg nga am soxla yoo xam ne foog nga piloté le maire bi loolu moo tax ma dem devant le maire pour piloter pour askanu ay nu man lépp lu ñu mëbët te ma mën koo faj man ci sama kàttan sama doole ma jaayante ma dem di leen ko fa réglé loolu mooy mooy li ma nekk ci ay nu maan kooku mooy soxna ay di taalibe nag ay nu ah di seen jigéen ah di seen ndaw ah di seen bayfaal ndax bëgg leen rek waaw loolu daal mooy sama sama mébét ci ay nu jërëjëf maman kàddu yi am na solo lool ñu ngi dégg ci say biir wax nga ni euh, yaa fi bàjjanu gox yaa jiite association des femmes yi nekk fii nii euh, yan mu mel noonu maman ñu lay laaj nan ngay nga pa nan nga koy gérer. waaw marché yi ni ma koy gérer macha allah sant mooy li ma la ni quartier bi ñoo ma dimbali. Mm-hmm. parce que soo nekkee ci quartier bi vraiment conseil de quartier bi le délégué de quartier ñoo ñëpp nga nekk seen ndaw. ñun bala ñu def fi dañu am lu ñu jàngal au passage maa ngi ñuy sama délégué de Matar Fall dafa am lu mu jàngal soo nekkee ci quartier bi war a def dara da ngay dem devant moom nga waxtaan ak moom. am nañu fi conseil de quartier Assane Diop maa ngi koy ziare au passage nga am loo waxtaan ak ñoom bu ci côté quartier bi la su dee ci daara yi tamit yaayi daara laa parce que daara yi fi nekk yépp defe naa ne nii trois daara maay seen yaayi daara su ñu amee tamit lu ñu jëm ci daara yi dañuy dem ci daara yi waxtaan ak ñoom. loolu tamit ci comme bi lu ma gën a bëgg sama àddina nag mooy daara mm-hmm. daara du ma ko bëgg sama xol su yàlla seere na ko suñu jógee ci loolu bu ñu soxlaa tamit école bi tamit parce que école bi tamit yaay laa fa parce que dama bokk ci comité de gestion bi loolu mën naa na daal ay numan daal tous les touches suñu borom dimbali na ma am naa xol am naa détermination am naa Pastef bëgg naa ko bëgg goo xam ne lépp lu ma ci yëg rek te mën cee am lu ma ci faj wala nu ma ci taxawee rek dama ciy taxaw mhm. loolu moo tax na gox bi ma di ko topp ma am ci nag lu ma neex mhm. parce que sama sët yi rek su ma rombee ci mbedd dañ naan maam jàngi nañu wala maam ñekku nañu wala maam pikiru nañu loolu muy lu ma neex mhm. leneen li tamit social bi ku ko soxla it lu ma ci mën dinaa ko ci def parce que dañ ma ci jànga tamit ah na sa nopp yi rëy ngay dégg lu ne mais na sa gémmiñ tuuti man defe naa soxna ay képp ku ma wax fii sa soxla man ak yow rek ak yàlla mhm. kon nag defe naa ni loolu moo indi tey lii lépp yomb ci man mhm. man dara jafewul ci man parce que ay nu man dañ maa bëgg ma bëgg leen mhm. bëgg daara yi daara yi bëgg ma bëgg la délégué la conseil de quartier bëgg mag ñi bëgg jigéen ni jigéen ñi bëgg ma kër gu ma fi dugg su may dem terrain suma waa kër ngi nii fi ne bu may dem terrain terrain bi lay ndékkee kër gu ma dugg fa lay añee parce que c'est la famille kon nag maa ngi sant bu baax waa ay nu loolu nag mooy sama taxawaay ak waa ay lumaan ñoom ñoom ñoo ma ko def. Mhm. ñoom lay sant ñoom lay remercier ñoom laa koy delloo maa fii loolu la. Mhm. jërëjëf maman euh, ñu gis tey yaa ngi def euh, sa jaune bu la macha allah bu yaa ngi loolu. Mhm. ak euh, photo maître Abdoulaye Wade. di parti PDS maman ñu la doon laaj kañ nga dugg si politique ak lan moo la motiver nga dugg ci politique. waaw nag yaa ngi may dog di laal nag yaa ngi woon ci carte bi mais yaa ngi may dog di laal parce man. Ablaye Wade laa ku ma gis ne Ablaye Wade gis nga ma sama bleur lii suñu góor gi farawaat Wade Ndiaye mi ngi nii sama góor gaa ngi nii lii nag dafay loo xam ne man doonoo la ci man ndaxte man nee naa la Lansar laa juddu xam sama papa dafa nekkoon ci lay Wade mais tout temps mu bëgg ko sama yaay bëgg ko man nag ma nekk ci woon ne boobu daawuma politique boobu xale laa ba ma nekk mag ma ñëw nag ay nomaana bi ma fi ñëwee tamit may sant parce que dama fi bokk collectif boo xam ne ñoom ñooy waa PDS yi ma ñëw dugg ci seen biir lu ma duggee ci seen biir di politique kon nag mën naa ne 2000 ba léegi fii ci ay maan may def politique politique sérieusement nag parce que politique dafa am domba yoo xam ne boo ko tappoo mm-hmm. doo xaste doo wax loo wartu wax mais di nga wax vérité mm-hmm. di nga wax li am di nga xam ne tamit parti bi nga xam ne moom laa nekk suñu papa dañ daan wax naan dee leen liggéey toujours travailler beaucoup travailler mais bu fulla ak te taxawee na ngeen défendre seen parti te parti bu mag lañu parti boo xam ne ku ne xam na Abdoulaye Wade li mu liggéey ci réew ñu ànd nag ak suñu benn maire maire boo xam ne libéral la bañkat la liggéey muy le Cheikh le maire Cheikh Dieng mi ngi nii maire Cheikh Dieng mi ngi nii parce que wax ji nag bari na mais moom dafa am bilan xam nga maire moom loo mën a wax wax ji matu ko ci mbedd bilan la nit ñi xool kii mooy Cheikh Dieng moo fi la euh, Ablaye Wade bilan baa de la femme yaa ngi nii femme installée bu mag a ngi nii ma ngo Esplanade café teri bi lii lépp Cheikh Dieng mi ngi ko nekk mi ngi nekk ci élèves yi mm-hmm. mën na ci enseignant bi ci la gën a la gën a fort parce que man mi ci école douze bi indi na ma fi ay classe jox ma ay fourniture loolu lépp mu def ko ci enseignant mi ngi taxaw ci lépp kon nag ku mel nii boo ko amee ci quartier bi war ngaa taxaw défendre ko ba ligsam yàlla dogal ko mu jàng te nag dama ciy sant parce que daf ma investir kon nag ku mel ni man ni su ma investiree danaa taxaw ak nu ma mën a taxaw laaj baat waa ay nu ñu poussé ma ma dem ma dem ma dem au côté du mairie défendre sama parti yaakaaruma ci kenn ay nu maam laa ci yaakaar parce que lii tamit demewuma ko lu dul sama bopp te ñaanuma yàlla dem fa ngir di tappale ngir ci dara dama fa dem bëgg-bëggu ay numaan soxla ay numaan ma défendre devant le conseil municipal te man na ay Aida ku ma xam-xam ni man du ma du ma caaxaan bugguma caaxaan du ma di def lu ma warta def di di kenn damay politique ne la nous sommes ensemble nañu ànd ëllëg lu nu yàlla may ñu bokk te ëllëg suñu ëllëg mooy suñu réussite ay doom ëllëg conseil bi ñu défendre suñu doom jàng ami diplôme ñu ne ñu defal ni développement des femmes parce que maa ngi ci liggéey bu ma bëgg a def tous les groupements recensé naa leen dama bëgg bu ñu yàlla dimbalee bu ñu jàll élection ma def leen en réseau des femmes fédération des femmes ñu daje ca école 12 ma def réseau des femmes ñu wut suñu papier àndandoo parce que nag quartier yi lu mu rëy rëy foo gis quartier jigéen ñi ñooy liggéey quartier yi ak xale yi waaw ma ànd ak jigéen ñi def leen en réseau des femmes jàppale xale yi boole leen tënk jigéen ñi ni yi ñu amul liggéey ñu wutal leen liggéey def fi ay centre de couturière def fi maison de la femme ñaan naa ko demandé naa ko waa quartier bi ëlbatiku nag dem ci jeunesse bi jàppale góor ñi di leen xiirta ci ñu jàng nekk ci njub parce que jaboot moom bu ñu jubee rek ñoom ñëpp ñu jub kooku tamit ñu ngi koy ñaan di fi ñaan sécurité bu wóor di fi ñaan tamit suñu njaboot yàlla def ci ñoom barke loolu mooy li ma indi ci politique. Mhm. di ñaanal nag docteur Cheikh Dieng coalition wallu laa bokk. Mhm. wallu la wallu laa bokk kon nag coalition bi may ñaan na ma ci ñëpp votel man soxna ay dafay investir lig si wallu ànd ak la docteur Cheikh Dieng wallu Sénégal wallu jidde caare kaw wallu ay numéro 3 ku ci wote man soxna ay na fay ni man nga woteel parce que bi bu jàllee ci école 12 mooy soxna Aida dem na ca conseil municipal ba défendre li quartier défendre doomu quartier défendre les femmes défendre lépp loo xamante ni baax baax la ci quartier bi te amuñu ko woon man de sama mëbët mooy ma dem défendre leen devant le euh, conseil municipal mu ñëw ci ay nomades loolu mooy samay jéego ci politique bi. jërëjëf maman. ñu ngi dégg sànq si sa biir wax nga naan euh, waa quartier bi dañu am yaakaar si yow te yaa ngi leen di jàppale est-ce que euh, yaa ak sa leader euh, docteur Cheikh Seck. est-ce que waa Cheikh Dieng est-ce que waa Jidda Thiaroye Kaw mën nañu am yaakaar si seen programme ndax seetlu nañ fi politiciens yu bari bu ñu bëggee faru ay programme yu leer la ñuy teg te bu ñu xësee ba faru daal di fay seeni téléphone wan seen askan ginnaaw. Mhm. est-ce que yow loolu yaa ngi ciy bàyyi xel. noo man maa ngi ciy bàyyi sama xel parce que lii daf maa doy. parce que nag dama fi yàgg politique leader bu ne fekk na ma fi mais leader wax mais kii opposition la kii président Macky Sall joxu ko kii la maire Kimbo joxu ko kii c'est un opposant xam nga maire opposant ak maire pouvoir du benn kii mhm. opposant la kii lu ñu ko jox mu réaliser lii liggéey lii kii xam nga ne liggéey na avant amaat nag bilan boo xam ne yéene wax na ko loo xam ne mu defaraat mbedd yi defaraat euh, euh, fonds yi defaraat foot mbedd yi éclairage public bi mu dolli ko demaat ci sécurité bi demaat ci les euh, les enfants demaat ci njàng mi loolu la tegaat mais réalisation bi bi ku ko gis maire bu nekk opposition nga def ko nga xam ne kii liggéey liggéeykat la kii bu fekkoon ne pouvoir la nekkoon tey macha allah kon defe naa bi bii dina doon fukk mais macha allah kii lekkul ay li muy recette lekk ko kii def ko liggéey liggéey. dem yóbbu leen defal leen ay formation des femmes céréales local bii nag laa bëgg mu ñëw ay numaan jigéen ñi jariñoo ci xale yi di jàng dégg nga espace public bi am na fi bu mënu dig fii ci quartier bi xam naa ko te bu jàllee dina ko dugal léegi kii mooy docteur Cheikh kii nag mooy liggéey de un opposant bu technique amul ci Pikine opposant bu am bi bilan amul le maire de la ville sax amul bi bi bi bilan ñun bilan la ñu yor ñun ci bilan la ñuy wax mais ñun duñu dem di wax ci loo xam ne xamuñu ko lu dul bilan duñu ko wax te sama mère nag dafa neex a dafa am bilan te ku yërëm jigéen ñi la parce que boo duggee tey ci andumaan ay quatre-vingt et quelques euh, leget ñu ngi koy teg foofu foofu sax ma ñëw fa ndaxte leget yooyu dugal na ko ci ay numaan te loolu dama ko dama ko nëbb mëbatoon yàlla indi na ko avant élection incha allah demee ci mercredi bi 5 heures maa ngi woo bépp jigéen bépp wax ay lumaan ñu tase ci koñ bi buntu ko Pa Mbaye Ndiaye soxna Anna délégation femme action et développement danañu fa ñëw fekk si ma tegal ma légetu développement non pas légetu politique légetu développement madame Cheikh Dieng na ma ko fa tegal ñu développé ay numaan commencé ko te incha allah ñaan nañu léget di dugg ci biir ay monument ba mu nekk cinq léget il paraît que def na fi ñetti léget mais il paraît que ñu ngi koy ñaanaat mu dolli ñu ñetti léget parce que ay numaan sentir bu baax la développement mu gën a dugg développement moom ma gën a soxal suñu paree mu dugg ci enseignant parce que euh, ci ci ci ci les euh, élèves muy éducation waaw loolu tamit lu ko soxla ma di ko ko ñaan di ñaan tamit sama daara yi tamit mu gëstu ko lii maire da ko cee fekk ko bu doon ko def ma di ko ñaanal na mu gañe commune am bi gañe la ville tamit parce que la ville ñaari élection la ñun suñu maire dafa bëgg commune bi gañe ko cent pour cent ñu dem ville gañe ko cent pour cent ay nu ma euh, commune bi gën a neex ku ku am commune boo amee ville di jël ci ville ba di ñu jox di ñu suqali loolu la ñu ko ñaanal te yàlla na ko yàlla def le 23 juin ay dumaan maa ngi fi ñaan yal na fi jàmm am ñun jàmm rek lañ daan doxal yal na jàmm que le meilleur gagne nañ ko def ci ci ci ci ci ci jàmm ak ci salaam ñu déggoo juboo bu ngoonee résultat yi génn ñu ne soxna Aida wàllu Sénégal gañe na macha allah jëf <laughs> jërëjëf maman kàddu yàlla na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax kontaan nañu loolu ci dalal ñu dalal. léegi euh, boo amoon euh, mot de la ak lan ngay wax ay numéro 3 ak nga laal ñu tuuti si sa programme suba bi incha allah lan lay doon. macha allah di sant rek nag maa fii maa ngi santaat bu baax wax ay numaan mënuma leen a fay comme ni ma la waxoon au début ay numaan day sama kër di sama quartier di sama famille. ñoom ñoo ma bëgg avant ma leen di bëgg ñoom ñoo ma bëgg parce que mënoon naa fee teg sama développement teg fi sama yaay daara teg fi sama bàjjenu bokk ñëw di politique benn bu ne ay waaye waat naa ko ci yàlla ni aw ma ci benn problème fu ma domaine bu ma dugg rek damay dem parce que ci ñoom la la délégué daf ma bëgg am fu ma teg wóolu ma ci ay programme am la la conseil de quartier Assane Diom Decroix li imam El naa di sama càmmiñ di sama lépp samay conférence moom mooy yor lépp gox bi nag ci boppam muy jigéen góor dama la ne léegi su may dem su may dem terrain du ma añee sama kër du ma reere sama kër ci mbedd mi di ñoom lay aji nag maa bokk ñoom lépp kon nag ñooñu mënuma leen a fay di leen woo nag suba parce que tamit gan gii ma fi indi ganu ganu ay numaan la su fekkoon ne sama gan la mën naa ko recevoir fii sama kër woote mais duma ko def ci diggu mbedd mais ci buntu kër Pambay Ndiaye laa ko woote di ci woo tous les femmes développement tous les femmes amul amul amul politique amul na ma ñëpp wuy si ñu xool gis madame Dieng Anna Coulibaly dina ñëw waxtaan ak waa Aïnoumane teg leen ci yoonu développement teg leen ci yoon woo xam ne bu ñu fa tegee la mu nuy lalal lay taay bu soobee yàlla ñu ñaan ci yàlla bu ñu ko toppee bu rendee déwén dootuñu lebati banque ndax damay bañ banque bu boobaa ca sunu leget googu dinañ fa sukkandiku di def suñu développement di fa def suñuy formation di fa liggéey ba koom fekk fa ñun nag loolu la ñuy woote suba ma di ci ñaanal ñëpp di ci woo tous les groupements tous les présidentes maa ngi leen di woo tous les femmes maa ngi leen di woo additu góor ak jigéen rendez-vous demain 17 euh, ci ay nu 3 ci buntu kër Pa Mbaye Ndiaye maa ngi ciy woo ñëpp di ci ñaan ma ci ñëpp ñaanalit réussite jàmm salaam wasalaam jërëjëf maman kàddu yi am na solo Salam Vision ñu gërëm euh, ci dalal bi jàng bi di la ñaanal ko di fan